tal-tallu ku nekk génn Assane Diouf yee du murit du lii nangam nangam soo xam naa Aïda Diallo moom mooy murit Aïda Diallo mooy murit ah Aïda Diallo mooy murit ah Aïda Diallo bi Seex Muntaxa Basiiru mbakke toog ne yemal fii mu continuer di def li muy def ngeen ci teg seen bët <laughs> ey xam naa li mu woddoo la kon li mu woddoo la li mu woddoo la moom ngeen soxla ah doomeraam yi doomeraam yi tey le 24 février un an bi ma génnee kaso ak léegi yéen doomeraam yi di wàcc Serigne Touba yee Assane Diouf buñ ko jàppee Assane Diouf lii Assane Diouf amul garde corps de amul garde corps adduna bi yëpp mën nañ koo seede ay nu man laa dëkk ci bayal bi laay nekk guddeeg bëccëg awma garde corps ana ngeen dooméram yi Aida jàlloo xolal sëñ Muntaxa moom moo toog ne kii na yem fii fan ngeen nekk muy jël yoonu Serigne Touba bi di ko booleek ay Saint-Valentin benn caga bu xeesal ba maara day taali xeesal xeesal xeesal xeesal laa wax sëriñ Abdoulahad Mbacke moo tere woon xeesal Touba magu sëriñ Saaliw sëriñ Saaliw ñëw xoolal teg ci tànkam xoolal tey jigéen toog xeesal ba mel ni mu war a mel keroog bi ma toogee Amérique di xorom waaye bu leen ma tax a saaga waaye xorom di ma toog Amérique di mu wàcc Chicago teg greffage am xam nga di wax di wax ey ñun am nañu respect ah am nañu respect ba pare gëm nañu Serigne Touba xam nañu kan mooy Serigne Saliou ok xam nañu kan mooy Serigne Saliou moo tax ñu taxawoon ci dëgg gi moo taxoon ñu wax ci indiwaat leen seen xel mais nag manipulation yi bari na trois ans ku nekk di fen ku nekk di wax Assane Diouf lii moo tax ma leen postel rek lu waay waxoon postel naa la ko ay Assane Diouf dafa dem seeti docteur dafa sida manipulation fen 2017 parce que boobu yaa ngi wër buzz ay Assane Diouf laay xeexal xam nga moom nangam ak nàngam xolal créer say association say mouvement fen yéen ak Macky Sall yam ay Assane Diouf laay defal lii moom laay duggal fii moom laay génnal fii fen come on brother ba may xeex man xoolal li ma doon xeex ba tey jii moo continuer di nekk dëgg li ma doon xeex ba léegi nii moo continuer di nekk dëgg yéen doomeram yi du ngeen génn wax wax ci ay Aida Diallo du ngeen génn du ay taalibe ngeen da ngeen a mën a fëgg buntu kër jaamur yi ay duulkat yu toog ci ay tele ay soxna diw ay sëriñ diw ay sëriñ nangam te bu ñu génnee xolal ci caga ji lañuy mujj xam nga soxna diw ak soxna nangam xeesal ba mel ne ordu zawel seen yaram yi ba mel ne lu kenn mënta wax hey respecté leen seen bopp meen balaa ngeen di ubbeeti seen làmmiñ ci baay faal xolal ngeen xam li ngeen di wax man dama judd ci murit man samay maam dañoo liggéey pour Serigne Touba xoolal tooguñu rek yor seen làmmiñ pour sëriñ Touba tooguñu ci tele yi télé yi ak rajo yi di wut bës di gërëm ay doomu aadama suba ba ngoon toog ci tele bi sëñ diw yàlla na ko yàlla defal lii boo paree dem seeti sëñ diw xam nga soxna diw yàlla na ko yàlla may nangama boo paree dem seeti soxna diw yóbbaa xoolal maag yéenay daje maag yéenay daje ah mais barke maam Cheikh Ibrahima Fall li ma leen waxoon gëmu leen ko ah Baye Fall yaa ngi ñëw te Baye Fall yi xoolal dañoo yegg si ba teg seeni bagage billahi wallahi di xaar heure heure dong la ñuy xaaraan ah, heure bi bu jotee billahi wallahi di ngeen xam ne Baye Fall yi egg si nañ parce que xoolal Baye Fall Baye Fall dong lay doon te ñun duñu bàyyi ilaa yow mi diini parce que maam Cheikh Ibrahima Fall musta bàyyi ok think about xalaatal xalaatal man noonu laay doxe noonu laay doxe zéro ngistal zéro ngistal pour ñëpp lépp pour ñëpp yàlla pour ñëpp ah Assane Diouf pour ñëpp lépp pour ñëpp yee beraluma ci kenn lenn that's how I work my life moo tax xolal I don't give a fuck about what they say xalaatuma lu ñuy wax sama yoon nekku ci beside that I'm going <laughs> to talk to my lady. Malika, I love you. My love of life. I love you for life. And I will be with you for life. And I will thank you for life. Malika Ubaka. And I will announce this. We had a project going on in Senegal. And Massa the money, Massa the money, who come to that project, his my wife money. from his people. That's why I say my wife money. From his people, the American people, okay? Delo si wat len sen xel, okay? Yeah, I speak English. Massa the money we put in this project to build a nice, a small park for the youngsters and picking Ainuman Troa is one of the, best thing uh, somebody have to do to stop talking and get back to work. Get back to work. And I'm going to thank you, Malika. I'm going to thank your people in America. And I'm going to thank all my friends who put money on there. Hold Usman Tunkara. Yeah. jàmbaar nga ci gaynde nga jërëjëf Sali Diop Yaaxadi Fëtan Jaw Baabi Mouhamed Fadel Dieng Ousmane Sow Kodou Diagne ah, Viviane Sophie ah, naka lañ koy waxe ah, Dame Ndaw Dame Ndaw Gaynde Dame Seck Wësëm how to call it gaynde gi Ren Diop suñu gaynde gu jigéen gi reen parce que gis ngeen li fiy dox li fiy dox gis ngeen ko mere nañ ko tam nañ ko dëmm jiiñ nañ ko sàcc saaga nañ ko ay ndey moom ak sama yeneen nit ndax Assane Diouf te terewul ba léegi ma nga fa ba léegi ba léegi mi ngi fa ak lu mu mënti dégg xolal mi ngi fa ba léegi reen xolal ñun ndam lañuy xeex pour Sénégal xoolal da ngaa dëggal sa bopp moo tax xolal chaque jour yee dara du la jéggi loo xamante ni affaire dëggal sa bopp la dara du la jéggi mais muñal gën a gënal nga yokk nga muñ ba pare di jéggulu sa doom Boubacar di jéggulu sa yaay bi dégg ñu lay saaga di la wax ay affaire chaque jour ndax man ok di la ñaanal jàmm ba yàlla def ñu gisantewaat ci jàmm ba toog ci sa kanamu yaay xam nga bu boobaa ma wax li la boole woon ci xeex bi parce que lépp fi la ma fekk lépp fi la ma fekk Sali mënuma leen yéen samay jabar ngeen sali yaa xadi you know and ngeen ganale seen gan euh, nu mu tuddati sax euh, alima alima welcome to United States ok liggéeyal pour Sénégal ah di di remercier sama frère xam nga Ousmane Sow du bàyyi jamais te ku ko jéem ma bàyyiloo moom yaay bàyyi Ousmane du bàyyi ku ko jéem a bàyyiloo yaay bàyyi ok di gërëm euh, naka lañ koy waxee moodu Gaal Seen moodu dinaa la woo you my brother I love you for life kenn mënu ci dara man sama mbëggeel maak yow kenn mënu cee dara parce que da nga jël sa doom tuddee ko sama jabar Malika ne woon bu juddoo nekk góor ma tuddee ko Assane Diouf bu juddoo nekk jigéen ma tuddee ko jabaru Assane Diouf nga def loolu moo tax xoolal kóllëre googu mooy dox moo tax bi coow yi amee yenn affaires yi munuma toog di ja di laaj ko sali wala yaaxadi xam nga waxtaan nañu may leen bàyyi leen sama frère rek mu dox doxam yàlla xam nga dina ko wëlbati parce que noonu la fa war a demee xam nga di di di remercier ñëpp ba pare di remercier tamit ñi xeexoon pour Assane Diouf ñëpp ñi nga xamante ni xëy na ñenn ñi dañu fàtte ne Sénégal lañ doon xeexal jël affaire bi def ko personnel ba xam nga mer ay waa lu ma woo téléphone léegi lii yéen ñëpp maa ngi leen di remercier xam nga di leen woo ngeen dellu siwaat xam nga ñu ànd xeex-xeex bi ci yoon xam nga euh, di di di remercier ki nga xamante ni mën naa wax ne moom mooy sama yaay mooy sama yaay muy sama grande sœur barki sëñ Fallou parce que xam nga nit dafa am foo koy féete ah dafa am foo koy féete après boo ko féetee foofu xam nga après day taxaw mel ne moom moo la jur te dama am sama grande sœur Ndey Faatu Diouf depuis avant may génn senegal lii mën naa ko bind livre barki sëñ Bamba parce que nit lu la nit defal ci lu baax xam nga ko avant may génn Sénégal muy neex muy naqari xolo fu ma mënti nekk dina ma fa fekk ba tey jii ba bi ma ñëwee Sénégal xolal ak ay wax ay coow ay réeroo terewul chaque fois xolal dina wut yoonam ba ñëw xam nga li nga xamante ni mooy dëgg mu teg ko ci taabal ji te du du ko def du ko def ay xuloo du ko def ay xeex du ko def xam nga xam naa ne dina am lu ko naqari dina am lu ko naqari xam nga ma bëgg yeah that's my sister yeah yéen àdduna bi kooku sama mag la I love her yeah sama mag la mooy sama yaay barki sëñ Touba moom laa def muy sama yaay parce que xam nga njureel cofeel la mooy ki lay muñal mën la muñal lépp mën la muñal lépp yeah loolu mooy njureel xam nga te loolu lay dund ak man xolol maa ngi ci bayaal bi kenn du ma fa fekk mais xolol day bàyyi day day sonn day liggéey day def lépp xolol mais bu toggee chaque dimanche bi muy yendu këram nga xam ne man kenn du ma wax loxoom xam nga boo yi ma nekkal dama leen koy wax xam nga kenn du ma wax loxoom bu ñëwee rek dama leen wax boolu ndey juf moom ah yee xolol depuis ñu nekkee xale la xam nga pour moom mu togg mu togg teg ko ci yoon yee da loolu kenn mënu ci dara da koy teg ci yoon parce que da koy jaral mu ubbi loolu avant muy am jëkkër la dama ko fekkee dañu dund ci kër gi xam nga li ma wax muy jël weccatam di ko dolliwaat ci waañ di ko dolli ci baraada di ko dolli ci yeneen xama kooku xam nga yàlla na ko yàlla defal jàmm I love you my sister and you know I love all my people yéen ñëpp yéen ñëpp I love everybody yéen ñëpp bàyyiwuma kenn mais kooku sama mag la mooy sama yaay xam nga li ma wax jëkkëram tamit même chose xam nga yee te du def lu dul xam nga yee di kontaan xam nga di leen bëggee yéen ñëpp yéen ñëpp yéen kóllëre Assane Diouf yi xam nga yéen xam nga yéen ñi nga xamante ni yee dafa am lu leen merloo xolal yee bu fekkee ne man la du man xam yee maa ngi jéggulu yàlla nañu yàlla defal jàmm xama defal ko Sénégal ba pare ñu génn xeex pour Sénégal xam naa mënu ma wax lépp dama gëj ci caméra bi mais maa ngi woo ñëpp fi mu toll nii ñoo ngi ci presque huit cent huit cent huit cent treize doomu aadama huit cent non huit cent soixante presque neuf doomu aadama neuf cent doomu aadama yéen neuf cent doomu aadama yooyu di seetaan man la Assane Diouf dañu commencé benn jardin fii ci ay Aynoumane ci école bi dañu commencé école bi pour rénover ko xam nga defaraat ko équipé waat ko xam nga delloo xale yi ci cofeelu njàng xam ñu am fu ñu toog ñu sawar a dem école bu demee am ker gu ñu toog maire yi fay nekk di jaay am ker gu ñu toog xam nga professeurs yi am ker gu ñu toog parce que professeurs yi fa nekk ay jàmbaar lañu ay gaynde lañu xamali ma la dama dama damay ñëw ci école bi chaque jour mais dama leen yërëm parce que fi mu toll nii xam naa lan la professeur di jonkante di jànkonteel parce que xaley Sénégal xaley Sénégal ngir yàlla man la Assane Diouf président parent d'élève bu école dous ma jël titre bi ah, man kenn du ma sant li ma war a def li ma war a def kenn du ma ko sant ma jël titre bi def ko président parent d'élève yi nekk ci école Sénégal yëpp ma bëgg yéen xale yi ngir yàlla yéen a tax tey ma toog ci caméra bi ba wax ji jeex buggumaa yëkkati sax saaga ma leen di ñaan yéen xale yi bu leen sànneeti mbalit dégg ngeen daleen ko def seen saak daleen ko boxam def ko fenn seen saak ba egg ci kër ga boo eggee nga jël ko sànni parce que ni ngay jëlee mburu mi laxas ko ba mu rafet teddal ko ah teddal ko dugal ko sa saak dem ak moom école noonu laa bëggee nga teddal mbalit mi tamit ak mbedd mi xoolal jël mbalit mi defaat ko sa saak boo eggee ba ci kër ga nga sànni ko wala boo gisee mbalit nga sànni ko ngir yàlla dégg ngeen ah yéen ñi dëkk pikin koñ bi ma dëkk gis ngeen liggéey bi ñuy liggéey pour ñëpp pour ñëpp affaire bi fulla la affaire bi dëggal suñu bopp la man duma dem di woowi kenn mais ku ñëw fekk ñu ci terrain bi dëggal sa bopp taxaw pour liggéey bi comme ni ma ko waxee léegi ñu ànd rek liggéey kon yéen huit cent personnes yi affaire yi dafa am kum fu mu commencé woon ku ci nekk da nga amoon fulla yëkkati sa cent dollars ñi ñàkk seeni mille dollars ñi ñàkk seen million pour Assane Diouf ñi xeex ku nekk rey sa bopp pour Assane Diouf am liberté léegi man dama bëgg jeunesse bu Sénégal am liberté ñu ba jël xeex bi def ko xeexu Sénégal xoolal ku nekk bu jëlee xoolal un dollar un dollar un un wala benn euro huit cent personnes calculer leen ñaata la xoolal mën nañoo tegal sax ay banc public te xam naa ne mën ngeen lu ko ëpp tey mooy doon sama première fois ma toog jàkkaarloog yéen ñaan leen pour ñu xeex pour loolu pour defar école Sénégal yi pour ñu dajale loolu fépp fu waay nekk xoolal soit nga nekk Amérique salee nga fa soit nga nekk France Ren Diop mi ngi fa Viviane Sophie mi ngi fa nit ku nekk xoolal ki nga mën a jëflanteel nga jëflanteeg moom ñu jàpp ci nu ñuy def ba defar suñu senegal ñu defar Sénégal te bañ a jël affaire yi def ko personnel man ci loolu laay dox parce que mënoon naa toog sama kër ñi may jël seen ñiy jël seen xaalis yëpp amu ci kenn ko jëlagum sa xaalis ne ma Assane dama jën ciment pour defal école bi ah wala dama jën ciment pour def lii danaa ma maa la may lii xam nga li ma la sa la dimbalee lii sa waay xolal ma xam ne xolal yéen ñooñu ku ci nekk am nga ay doom yu nekk ci école yi xam nga école moom mooy defar am réew parce que éducation bu amul ci am réew réew moomu demul fenn moo tax ma dem ci école bi xam nga pour ñu soqaliwaat Sénégal parce que bu ñu éduquer suñu doom yi ñun li ñu rëcc ba tax ñuy mer mënuñu ci dara xëy na yàlla def ko ci suñu doom yi ñu xeexal ñu ko balaa ñoo dee comprendre nga xam nga loolu moo waral xam nga ma bëggoon ñëpp muy Reine muy Sali muy Viviane bu dee Sénégal la Pape Diouf mi ngi fi comme toujours dara changé wul xam li ma la ah, boo nekkee tënge Ibou Touré xama li ma la Baye bi yaa ngi dégg ah, foo mënti nekk foo mënti nekk ci àdduna bi ah yee boo amee looy jox nit ñooñu jox leen ko xam nga soxlawul jotuma Assane Diouf téléphone wala noo xam suma jotul Assane juuf téléphone parce que Sénégal la xam nga jotal Sénégal téléphone rek te boo jotee ci ñooñu rek jot nga ci Sénégal jot nga ci sénégalais yi xam nga ñu ànd defar suñu Sénégal xam nga di jeexale di jeexale li ma leen wax sànq ànd booloo nekkaat benn delluwaat ci xeex bi xam nga woo naa ci ñëpp woo naa ci ñëpp la baronne sama sister Georgie François Hélène xam nga ah, ah, ay Pape Ndiaye xuuru Maki ah, tout le monde ñëpp maam Thierno Ndiaye sama grand frère xam nga tout le monde tout le monde woo naa ñëpp ah woo naa ñëpp parce que mënu ma lim ñëpp benn dànk benn kurpañ ñu mën a am ndam ci li nga xamante ni moo ñu taxoon na jóg moo tax ma toog rek ne tekk tànkam leen xam nga booloowaat booloowaat Astou Diouf Codou Diagne tout le monde on est des frères et sœurs pour notre pays le Sénégal Sénégal kese ok Sénégal kese buñ ko def Sénégal rek parce que heure bu ñu ko defee Sénégal rek ku nekk da ngay xalaat sa bopp rek moo tax ñuy am problème chaque jour nañu génne Sénégal rek bi teg Sénégal kese jiital Sénégal kese xam nga lu ma la suukar ko xam nga lu ma bu ñu amee lem xëpp ci nekk ci jàmm xam nga bu ko defee ñu mën a avancer mais mu mënuñoo ñun xam nga ku nekk lonku ba pare bëgg a ci Macky sàll mënul nekk parce que boo lonkoo mënoo lonku mënoo fexe ba lonki ku lonku comprendre nga li ma Macky Sall dafa lonku ay mbokkam lonk ba tay jii biir Sénégal suñu mbokk alpulaar yi muy tukkulóor yi boo leen nee nedd ko bandum ñu ne déedéet du ci makki Sall de waaw ñoom sax dañuy bañ nedd ko bàndum léegi ndax makki sàll bon gi mu bon ci Sénégal kon yeewu leen xam nga ñu jubbantiwaat suñu réew ci yoon ba pare yeewu tamit yéen jeunesse Sénégal xam ne waa ji nañ ko bàyyee quatre ans comme bàyyi nañu benn at mu jàll nañu bàyyi ñeent yi jàll mais Macky <laughs> bul mës a wax troisième bul mësa a wax troisième bis boo ko waxee rek di xam ne yàlla julli rek la santaane sama gars yi ñu tàggatoo parce que fi toll nii guddi na fii ci Sénégal waxtaan bi neex na xam naa fii ay fan rek dinañ dellu siwaat di gërëm sama rakk yi ma àndal dëggal suñu bopp góor ak jigéen janq ji mënuma lim seen tur yéen ñëpp maa ngi leen gërëm bu baax ci liggéey bi ngeen di xëy si di ko liggéey chaque jour te tàyyiwu leen ci sama naqarit deret sama compliqué lépp xam nga terewul ngeen ñëw rek xam nga tonton Assane loo bëgg ñu def tonton Assane lii xam nga sama sama sama doom Mbaye Diop sama sama frère sax laay wax xam nga parce que moom ñooy nekk chaque jour xam damay dindi doom bi teg fële xam nga ñu nekk ay xarit nekk benn xam nga euh, euh, am Aydara Cheikh Diouf xam nga ñi ciy jàpp sama rakk bi nga xamante ni chaque fois mu moom xam nga dafa am ay liggéey mais day dem jënd wargaam ak suukar indi Samba Diouf xam nga li ma la wax yeneen jeunes yi xam nga ah, ah di gërëm ñëpp ak suñu yaay yi ak suñu sœurs yi ak yaayu xale yi bàyyi seen doom yi tamit ñuy ñëw chaque jour di nekk ci liggéey bi ñu ngi leen di gërëm di leen remercier di remercier waa Sénégal yëpp xam nga di ñaanal ñëpp jàmm di wax Sénégal yéen Baye Fall yi wax leen ci Aïda Diallo balaa Assane li di génnati ak xorom si parce que su ma génnee ak xorom si wallahi billahi dina gën a dina xam ñun ba ñuy nekk cantaakun ndax Serigne Saaliw boobu moom xamul luy cantaakun parce que bërki dém boo njaay la toog ci leget gi xam nga ñi ko fe ñi nekkoon këll gi avant leget gi na leen respecté na leen respecté respecté li ko xalifa général des mourides wax ba pare yéen yéen yéen yéen yéen yéen yéen sëriñ fàllu faal xanaa xamoo yàlla day atte ba ngay génn di wax ci Assane Diouf di ma tëkku boobu xanaa da ngaa fàtte ne sëtu maam Cheikh Ibrahima Fall nga maam Cheikh Ibrahima Fall musulal tëkku benn jaam ci kaw suuf Baye Fall du tëkkuwaate Baye Fall day respect ñépp sëriñ Fallou Fall Moustapha Diakhaté bu leen tëkkooti Baye Fall moo waral tey xolal kii Baye Fall la mi ngi dox ci kaw suuf si mais soxna soo xamante ni tekkiwul dara tekkiwul dara Ordu Zawel boppam ba mel ni mu mel Aïda Diallo yow lay waxal barke sëriñ Fallou boo taxee Baye Fall yi jóg billaahi wallaahi wa taalaahi di nga daj lu mburu dul daj ci biir taal barke Mohammed parce que ñun Serigne Touba rek la dund avertissement la nag bu ñu dellu siwaatee barke sëñ Bamba say mbokk dinañ jóg di wuti xorom pour fayu te duñu gis xorom suy jaay parce que dina fekk xorom sépp ñu xëpp la ko yow dégg nga nekkal soxna dégg ndigal respecté waa kër Serigne Touba yi respecté leen ba pare lii yéen ñooñu yéen ñooñu doon jóg ku nekk di tëkku di kërti kërti naan Assane Diouf li mu wax sëñ Bass Abdou Khadar la ku nekk ubbi sa làmmiñ ah. du ngeen génn nag du ngeen génn génn leen ne ku nekk génn wax parce que xoolal seede la yàlla bëggul kuy tooñ te da ngeen maa tooñ ma dem kaso ngeen nekk seeni kër di galayaabe ñi nekk ci tele yi di yalwaan ay ay ay doomeram bu mel ne Mamor Mbaay jàngoo dara xamoo lu alxuraan wax xamali ma la xamoo lu Sëriñ tuuba bind toog ci tele yi di woyaan dugg ci tànt yi ko weeru koor bu ne lu tax ñaari weeru koor yi lu tax dëggaloo sa bopp ñetti weeru koor yi nga ñëw sama buntu kër doomeram doomeram loolu moo lay won ne gëmoo Serigne tuuba te weer bu nekk fi nga doon ñëw premier jour koor di yalwaan di tagg waa kër gi lu nekk nga def ko pour lekk tey nga ñëw naan Assane Diouf du baay Fall lala lala lala kàcc rek espèce waay donc doomeram doomeram doomeram comme Mamor Mbaye bi xeex bi rek xeex bi rek bu dara nekk personnel Sénégal rek ñu xeexal Sénégal bu ko defee Sénégal am jàmm ñun ñëpp ñu nekk ci jàmm xam nga yàlla rawale ñu rawale suñum réew rawale suñuy njaboot xam nga ci set ak sell sellal suñuy xol xam nga li ma dimbali ñëpp te xolal dimbali ñëpp nag parce réew mi ñu nekk wallahi billahi kuñ fii limal li nga am jaam nga jaam pire man Assane Diouf maa ko wax kuñ fii limal di la wax naan am nga lii mën nga lii yaay lii jaam nga jaam nga jaam nga merci mon frère Khadim Gueye xam nga li ma la merci yéen waa Sénégal yëpp man la Assane Diouf xam nga li ma la di leen ñaanal jàmm xam nga di ñaanal ñëpp jàmm xam nga di ko ñaanal ñi fi nekkoon démb di xeex xam di ko ñaanal Baye Fall yëpp xeex leen pour Sénégal Sénégal kese ba pare yéen ñi jógoon yor turu Assane Diouf ku nekk sol say dàll xam nga yor sa làmmiñ wat sa bopp ba noo mënti def ak koo mënti doon nga làqatu ci ginnaaw caméra bi ak ñi nga xamante ni dañoo génn yor seen làmmiñ naan dañuy xeexal Sénégal te xoolal kuy xeexal Sénégal waneel sa kanam waneel sa kanam mu noo xeexal senegal làqatu ci ginnaaw caméra bi góor jigéen laa ci yemale bàyyi seen affaire u naafiq yooyu alfiqa I love everybody tàggatoo tàggatoo tàggatoo dinaa ñëwaat du yàgg dara ñu jàkkaarloo waxtaanaat xam nga pour suñu Sénégal niñ koy defee saa su ne ah bu leen fàtte bu leen fàtte dëggal suñu bopp lépp lu waay mën Pape Diouf mi ngi Sénégal Pape Diouf mi ngi Sénégal ah this is gonna be the first time dëggal suñu bopp taxaw pour raise money raise money dajale xaalis pour ñu taxawal suñu liggéey ñu góor góorlu ci loolu nekk ci jàmm nekkal senegal ci jàmm bu ko defee ñu mën a avancer I love everybody I love you Malika I love everybody thank you everybody and good night